maa ngi lay fay bu baax di la ziar di ziar ñëpp. sa gis la tey bisu nga def déplacement daal di seeti sa xarit sa rakk ki nga xam ne mooy Ajaratu Ngoy Fall. waaw Ajaratu mu Askia Touré su ma gëstoo rek boo joxee kii micro bi dina la xam ne ñëw bi ma ñëw du hasard sama deret la sama lépp la di sama rakk bëgg ma. ñu bokk damel de ci ful njoogu ma ak moom bokk ak moom daat mu nekk nit ku baax nit ku ma bëgg yëg ma maak ngoy ba 2 heures du matin maak ngoy ba 3 heures du matin ngoy su ma ñëwee seet si ko ci yoor yooru màggal gi dagan na ndax bu tol nii mu def lamay may invité këram defal ma ko te kenn du ko fekkee man kese mu defal ma bu fe bu tol nii ndogu te du ko fekk bëgg ma di ma yónnee su ma xewlee ngoy dina ñëw dama tollul ni ngoy rek mais ma xewlee ngoy ñëw yónnee ma délégation yu bëri boole ceeb teraanga kon ngoy su amee bis ma war fee mën a ñëw ñëw rek laa war a def ma ñëw sama kër la. ngay soxna jaara di yaayu borom bés bi sa digganteeg sama digganteeg Serigne Touba mooy sama digganteeg Serigne Abdoulade daal di Serigne Abdoulade aller ak retour bëgg ko lool fonk ko lool sopp ko lool sama sëriñ bi sëriñ Cheikhouna mu soxna Ndey Sourang li ma am yëpp mooma man li ma am sëñ Touba la sëñ Touba may jox du ma jeexal waxande wuñu laa wuñu soli wax may li may wax ki ma koy sol sol na ko ku ne ku ko sol mu neex la man yëfi sëñ Touba mu jàpp ma di ma defar ba léegi ñëpp sax yaakaar ne dama leen a war a defar kon man bisu Serigne Touba li mu santaane woon laa ciy def joxe addiya dox mbokk moo tax ma toog fi ci wetu ak ziar Serigne su baax ma toog ci wetu Ngoye Fall tey kon euh, yaakaar naa ni màggal gi sama diggante ak Serigne Touba ak taalibe kese la ndax sama maam yi toppoon nañ ko ba mu ñaanal leen man mii di wax sëriñ Fallou jàpp na sama bopp papa ni ko yàlla na nga gudd fan gudd na fan ba mënatul dara nga a sëñ Abdou Lahad la nga ñëwee fekk sa doom sa sa rakk def jongo ma takk ay oram comme d'habitude parce que loolu lañ ko xamee mbooloo mi nag wuy si ko ku gis daaw gis ren xam ne am na yokk waaw xam nga ngay personnage public la waaw ku nekk ak sa façon ah sama façon li tax ma nekk personnage public bokkul ak façon Ngoy mais Ngoy yàlla mal ko nit ñi bëggee 45 groupe WhatsApp 1000 personnes ci ay téléphone ku xëy di wax Ngoy Fall Ngoy Fall bu boole ko oyof ak yar ak teggin dina ma woo di ma seet di ma xool ba 2 heures du matin daf may woo sama mag ci loo nekk di ma defal teraanga kon Ngoy lii laa mën a def mënuma def leneen. soo mën tey loo koy dolli looy daanalee rek ak loo koy dolli di ko ñaanal yàlla gudd fan di ko ñaanal yàlla wér di ko ñaanal yàlla wérle di ko ñaanal nitam yi mu am nit fu na jóge fa Mbàkke Touba Dakar Sénégal Gambie Guinée Bruxelles Italie ñëpp ñëw nañ màggal si maanaam ñëw jokk ci moom ñu àndandoo jokk Serigne Touba defar màggal gi. Serigne Touba defal. li ma defal la ko defal Serigne Touba moo teral Askia Touré Askia di teral Ngay Fall. gis euh, ki nga xam ne mooy Askia kontaan gis la rek daal. waaw gis nga Askia daf ma bëgg moom Askia daf ma bëgg dafa ma teg te lépp nag ci kii la jaar bëgg moo tax ma ni ko su ngoy dee kontaan di nga kontaan te xam naa ni dinaa kontaan parce que ngoy dina kontaan. waaw moo ko def ni mu mel wax na ma ko te it ba ma ko xamee ba léegi arrière ma de askiya mee toog mbir la mbir a ngi moom. dafa wax wax ju doy waar ci Dakar Buzz daf ne moom cin la soxna Ngoy Fall mooy ko waa dëgg <laughs> loolu xam nga mënoo ko xam sax da nga leen di fekk ci intimité intimité boobu ngay xam ne moom cin la soxna Ngoye Kubéeram te dañ ko teel natt ba mu ci képp loolu moom man mun naa ko seede parce que la fekk naa leen fa macha allah ca kër ga ñu ñu ñu ñu ñu defee noonu ci na kubéer ñaari peer la ñoom ñaar dama leen di ree rek parce que dañoo bëggante. jërëjëf kàddu gi am na. merci beaucoup kontaan naa. Mouhamed dañuy daal di ñëw ci Modou Mbaye mi nga xam ne kenn dootu ko sax présenté defe naa ne miin na Dakar Buzz ndax fi la bokk internet yi koy seetaan tamit xam nañ ko bu baax ndax liggéey bu rafet bi muy def ci réew mi ñu ngi lay nuyu bu baax. mais jigéen maa ngi lay fay. di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax di nuyu téléspectateur yu Dakar Buzz yëpp di ñaan yàlla site bi yàlla na ko suñu borom yokk fuul ko ci barke naa Mohamed Dakar Buzz sama Dakar Buzz la waaw. tey sant rek sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sangu-sang yi di ñaanal Serigne Touba yàlla na yàlla yokk leeram tey boo dikkee Touba depuis weeru safar bi teru ba tey ba fii ma toog di wax ak yow. nit ñi adduna bi wërngal këpp foo dem xam nga ni ku baax ku yàlla baaxal ku liggéeyal yàlla ba yàlla fay ko bésam a ngi waaj a ñëw muy bés borom tubaa xaadim rasul muy am mbégte moo xam ni képp koo xam ne murit tijaan xaadir laayeen ñëpp a àndandoo di dund mbekte mi di ñaaral sëriñ Muntaxa balay sa moom bi mu dikkee dafa ñëw rek di ree moo tax ku ci am lu la naqari sax boo xalaatee sëñ Muntaxa da ngay ree moo tax ñëpp dañuy ree rek waaw bànneex rek mbégte mi neex macha allah. macha allah diggante Askia Touré ndax sànq gis nañ ba nga ñëwee def laa woo ba nga ñëw nga toog ci wetam ngeen am kàddu yoo leen nit koo tegul fenn doo ko defal loolu mm-hmm. soxnaam naka ci noonu moom tamit def na jëf jooju mm-hmm. xam nga sama diggante ak Askia ak Ajaratu Ngoy Fall euh, yàlla moo ko dogal ndax ñoom Ketchup moom la ñu xam bëgg Ketchup te Ketchup day sama xarit di sama lépp euh, yàlla def ñun bokk ma ak moom di mu may fekk kër ministre Amadou Ba nga xam mooy sama lépp ma koy ñaanal de passage le ministre Amadou Ba ak soxnaam Adja Bili Ba mu baax mi. bi ma fekkee mu ni ma Adja Ngoy Fall ak Askia dañ lay xool ci samay statut mais dañ laa bëgg ñu ànd dem fa Ngoy doon ku baax Askia doon nit ku baax ñu doon ay nitu valeur ay nit yoo xam ne boo leen fréquenté xam ne fréquenté nga ay gor. Ngoy doon nit koo xam ne boo ko fekkee biir këram boo doo gàttee xel danga kii man la gën a bëgg. ndax loo bëgg mu daw day daw boo ko fekkee biir këram day daw du toog benn place kooku nag bu nit ku mel noonu bu la yàlla booleeg moom danga koy téye te lim ma defal léegi moo dàq lépp ma dugg si mu xëcc ma waxtaan ak man foo nekkoon ñu waxtaan kaf ree xam nga loolu dafa neex loolu yëg la kon ñun ngoy dañ koy ñaanal gudd fan bu ànd ak wér mu yokk ba yëg ko yàlla musal ko ci barke Seydina Muhammad lépp lu mu def ci màgga gërëm bu déwénee yàlla na ko suñu borom fuul bi jaay nawel Moustapha. lan la sëñ bi defal. waaw man sëñ dama cee juddu. ndax man xaadir laa taalibe Cheikh na Cheikh Saad bu waaye sama bokk yëpp day xaadir sama xarit sama xarit yëpp de ay murit ma bëgg Serigne Touba nag yàlla rek tax ndax Serigne Touba kullu kuy der bu ñuul tey wax ashadu an laa ilaha illallah defal na la loo xam ne mënoo koo fay borom Touba xaadim rasul mhm. jërëjëf kàddu am na sax. waa jërëjëf kontaan naa maa ngi ñaanal waa Dakar Buzz yàlla yàlla defal leen jàmm su ma toogee si damay sant sama mag ji El Hadj Alassane Mbaye Malicoumba Dior dëgg njaare faralam bi damel teeñ bi Ceeku Mbaag Malick Kodong Ndella ku dul Damel Teeñ baa ngay faral am heure bu ñu ma dékkee micro lu mu gàtt-gàtt naa la ci sant gërëm la ci ndax nag lu ma mel ci réew mi yow la ñii buñ ma xamee yow a buñ demee ba fun ma gis ni ma Modou am sa micro ñoom yow mii kon maa ngi lay ñaanal yàlla na yàlla guddal sa fan di ñaanal le ministre Amadou Ba balaa une semaine yàlla na ko yàlla may lu kawe njortam di ñaanal soxnaam Adja biliba Ba yàlla may ko gudd fan ak wér di ñaanal Fallou Galas Lo Gaydel alaaji Mor Ndoye sama xarit maa ngi koy nuyu di ko ziar maa ngi nuyu ñëpp